dañoo bindoon plainte jébbal ko banque bi nga xamante ni moo ëppoon li mu dugal xaalis ci biir projet bi mooy banque africaine de développement ñooñu nag dañu nekk ci ñetti com ñetti euh, département yi Dakar Pikine ak Tëngéej ci seen biir ñu am ay kuréel yu nekkaat ci biir maanaam ñi nga xam ne dañoo bokk jàngoro ñii ay kër lañu yoroon ñii yoroon ay place liggéeyukaay ay commerçant ñi yoré ay école ay daara ñi yoré won ay tool hein ak ñeneen ñu nga xamanteni ay brocanteur lañ leen di wowe manam ñu doon liggéey ci walu ferraille ak mécanique ak yu mel noonu ñooñu ñoo dajé bokk ci benn collectif bi def plainte bobu jébbal ko ñi nga xamanteni moy mooy banque boobu ñuy wax té ñun xeex bi dañ ko xeex ba mu mat parce que commerçant yi ñi ñuy pour pour ñom moi non seulement plan d'action bi waxna na agalé sen sen travaux mais kenn ku ci nek dinañ la jox bu nga dem continuer sa euh, sa magasin ba mu ni boy continuer sa lolou ñun ñi ko comme ci ci ci ci biir li may laaj donc li defal marché tamit bëgg defal parce que kumba am day kumba amul day war ko mën am ci bir projet parce que mënoo ñëw ci benn localité bo xamee man sax 500 mètres de distance ñi nga fat dem ñi nga bay dem ñu taxawal ci mbedd loolu rafet te ko nek tax banque bi d'accord accord parce que amul benn forme de discrimination bu ñu war a dugal ak bu mu mën am na ñoo xamanteni ni fay nañ le ñi fay ñu leen xaj le sen fay dañ leena a mosal ah am na ñu nga xamanteni dañ leena dañ leena faté omission am na ñoo xam ne dañ leen a élargi dañ leen ne bokkoon ngeen ci projet après ñu génne baat leen ni leen bokkutu xam nga loolu yëpp ay problème la yu dajal fay bi ngay wax noonu mais naka nga mën a concevoir ki yoroon këram mu nekk titre foncier nga fay ko bati mu def conciliation depuis deux mille dix huit deux ba léegi mënoo ko fay mënoo ko fay foncier foncier boobu ay milliards yi milliards yu takku ba léegi kenn si ñoom jotagul xaalis bon beneen bi mooy ñi nga xam ne dañoo amoon ay daara ay école ñooñu dañ leen waroon a recaser mais ba sànq waxuñu sax lu seen i perte de revenu parce que xam nañ ni ay entreprise la dañ leen a waroon a ñi nga xam ne tamit dañu yoroon ay entreprise formelle di liggéey ci yeneen anam ñooñu ba sànq defoon nañ seen état financier yépp ba am na cabinet bu ko defaroon ba teg ko mais ba léegi fay ñu leen seen xaalis le fan lañ ko tek ay donc personne employée ci projet les brocanteurs il ñi wax 26 corps de métier de nek ko ci côté colobane 26 corps de métier xam nga mboro donc lolu yépp nak xaliss yoy ngay may tudd non ñi wax lolu banque bi joxon nako état du sénégal depuis 2018 depuis 2018 joxon na len xaliss tay ji dañu ñu tollaat ñu ngi deux mille vingt quatre loolu accès ci si de moo waral coow lu ba tey léegi ñu ngi posé question toujours fan bi dugg comme nag comme nag démb bërki démb ajuma bu bees am na lu ci wax yéen a ci yàgg nee na yow ñii dañoo def surfacturation yooyu et mais ci biir surfacturation boobu muy wax. am na ci quatre-vingt-quinze milliards boo xamante ni dafa ni loolu ay réclamation réclamation yi bu dee ni ñëlee bind nañ ko fenn quatre-vingt-quinze milliards mais action ci mi ngi jooy ba léegi di mi ngi laaj suñu xaalis ba léegi léegi ñoom war nañu leeral loolu comme moom nee na woo na waa IGE pour ñu saytu loolu moom audit financier bi ñu ngi ba xam loolu fan lay mujjee mais li ñu amal solo ñun ak fu étude boobu mujjee am na étude bu ko jiitu gën ko kawe mooy bu banque bi def gën ko wóor gën ko fiable bi banque bi def boobooy bu dëgg bi boobooy bu wér bi ba pare nañ ci sukkandiku fay ñu suñu alal ñoom bu ñuy topp seenu sàcc ñu toppi ko loolu mooy dëgg on en asse assez souffert li ñu dund si naxar dafa métti te doy juróom-ñaari at nit ñu nekkoon seen teraanga nga yóbbu leen ci ndóol pauvreté ah ba ko ci gis sax muy laxatu ci dëkk bi loolu moo war a jeex